برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان salaatu wa salaam ala rasulillah. sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax di nuyu Mawlaaya ak xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi nuyu ak maam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di nuyu al mudir al mahad Mawlaaya Cheikh Mouhamadou Mahi Ali Cissé Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass ñi nga xamante ni mooy yor mahad bi fële ci Sall moo leen jàng bu mag bi nga xamante ni bëri na ñoo xamante ni tey ay kilifa lañ ci Afrique ci àdduna bi yëpp ñoo xam ni foofu lañ jaar. للناظم الشيخ محمد الماهي عن مؤسسة من خرج المملكة المناطق ورسم باسم الحضرة من أنبت أكن بريزان كمات من خرج المو الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الماهي من إبراهيم ناس من خرج المو يرقمات في حضرة في أورجانيز جام من باي أكن جام تبريز sëriñ bi من ngi lay nuyu di la wax dal la jàmm ci lenn loolu mën a wax ci xamante ni moo taxaw suñu kanam ñu jàmm عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما هي سنتي على الله جل جل نتي صلى الله عليه وسلم نتي بين خمنة ما هي يوم الليل نتي صلى الله عليه وسلم بين خمنة ما هي ليل الليل نتي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أنا شيخ إبراهيم استجنك نهني أن إبراهيم الله هلاله هلال بدار النار يا جماعه هني أنا من دكيل أن دكيل إبراهيم يا إبراهيم نمشي بكم مولانا cheikh al islam xaaju la ñes laaxa feeñ na laaxa fenk na ilaaluhu teratu weeram bu tedd ilaalun weer la boo xam ne ba daali naadina fii jamaaluhu taaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy taaru yàlla yi nga xam ne moom la làmboo feeñ na ci weer boobu moom cheikh ibrahim ci mbëggeelam mu ne weer wi weeram la kon euh, ayda tijaaniya mooy comme yow suma soppe bu ñuy fii tey di ma laaj ci juddu moo na cheikh ibrahim gàmm gi njëm muy gàmmu Taïba Niassène man tam sama xel dana daj ne ni yenn Ibrahima daaha hilaaluhu man tam maa ngi ndokkeel sama bopp ci sama weer wi feeñ suñ weer ñun soppee baay yépp muy teroti weeru rajab weer wi nga xam ne bëri na wëlliw yàlla yoo xam ne am nañ ay may am nañ ay maqaama ci weer wi lañ ko amee moolaana muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam demee ci téere bi nga xam ne faydul ahmad yi moolana cheikh ibrahima ngi sori laalu nettali na foofu juddug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nettali na foofu booloog sayida aminatu yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayid abdallah di bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci guddi alxamis la woon bésu alxamis ci guddi àjjuma ci weeru rajab ci lañ booloo sang bu tedd bi sayda aminatu ëmb kon weer wi yeen soppe yi weeru garaaw la weeru for la kon maa ngi ndokkeel sama bopp di leen ndokkeel ñuy <clears throat> fuuglu bés bu màgg boobu di ko waajal bu baax ñu ñëpp ñu bokk fuuglu waajal bésu moolana cheikh al islam hajj ibrahima suñu bés weer bi nag nga xam ne ci la moolana cheikh ibrahim juddu weer la boo xam ne rajab la am na ci wëliw yàlla yi ñoo xam ne ñu ngi leen tuddee rajabiyuuna mooy ñu ngi ko jóg rajab Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu taalibe Baay tukulóoru Baay daana nettali ku amoon xam-xam la ci fànn yëpp ku amoon xam-xam la ci fànn wëlliyu yàlla yi ak seen maqaama yi seen maraati bi daana wax mu ne rajab yi yu ne yooyu boroom xam-xam yi sufiyanke yi yaxal nañ ci seen téere yi ne kooku ñi bokk ci maqaama boobu ak xaal boobu su weeru rajab feeñee dañuy seen yaram dafay diis mu mel dañu leen en asamaan ak suuf mel dañoo jël safara def ko seen yaram yi seen yaram di tàng ñu mel ko feebar ndeke leeru rajab bi moo fees seen yaram ba ñuy enul musiba doomi aadama yi pour wàññi leen nattu yi war a am ci at bi kon weer bi suñu waaji ci la juddu fukki fan guddi fukki fan ak juróom ci rajab ci tey ba ñeseen ma traka ma tey ba ñeseen cheikhaani mën a ba tagg na bàyyi ci juddoom ci tey ba dégg nga muhammadul wax na ko rabbaani tagg na ko ñeneen ci wëllu yàlla yi ñi xam ak ñi xamul ak soppe yi tagg nañ bàyyi kon bés bi nag bés bu màgg la ki nga xam ne nag mooy suñu sëriñ di suñ doomi sëriñ di mag ci pays bi di xalifa ci pays Cheikh Ibrahim di xalifatu saaxibul fayda ñu saydi wa walidi wa habibi mawlaaya Cheikh Ahmed Tijaani Ibrahima Niass xafidahu llah wa raahu wa atala baqaahu wa ayadahu bi nasrihi wa nasrin min indihi bëgg-bëggam yépp mooy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass bëgg-bëggam yépp mooy liggéeyal Baye bi muy dund ak Baye ci zahir dundam yépp bi mu dund ak moom daf ko jox yar jox ko teggin di ko liggéeyal fonk ay magam bàyyi na ko toppal ki sa mag yi nga nga respecté leen bëgg leen bul bëgg dara ak seen kanam mu nekkee loolu ba xilaafa gi ñëw dugg ci loxo tey sëriñ boobu tey nga xam ne moo dénkoon sëriñ Mamoun Niass feddali ko gannaaw bu ko Alaaji Abdoulaye dénkee commence sëñ daam dénkoon ko ko moo ma dénk man jàmbu xew bi liggéey bi maa ngi wax ci turam mbëggeelam mënuma ko mellal ba taalibe yi xam ko cofeelam yéeneem ci pays bi jéggi na dayoo dañ ko ñaanal wér ak kàttan ak nangu ñaan mu fekkee li mu bëgg mooy bés bi jàll ci jàmm wax nañu ko wax na ko autorités yi wax nañu ko ñu wax ko autorités yi ñi ngi xamal soppe yi ak taalibe yi ne jot nañoo def ay daje yoo xam ne ci turi komaaf fii ci Kaolack ak ca Taïba Niassène ma ci gërëm bu baax commission bi nga xam ne ñooy ànd ak man euh, su ma teewee ak suma ma fàddoo ñi di ma ut ci liggéey bi di ko rafetal ñoom ak waa Taïba yi dajee nañ ak sous préfet bu Nioro ak préfet ba def ay waxtaan def carte de charge bi nga xam ne moo ëmb bëgg-bëgg askan wi bëgg bëgg taalibe yi bëgg-bëgg sëriñ bi ci bés bi pour mu yéwén gannaaw loolu weer wi ñu génn laata ñuy dem ci élection présidentielle yi defoon nañ daje ak monsieur le gouverneur avant ñuy wate ci ay ci ay semaine ci semaine benn semaine yaakaar na man mii maa ko jiite woon ak soppe yi teewoon nañ ak waatee bi nga seen yi keroog mboolem doléance yi nga xam ne nii am nañ ko ci kër gi monsieur le gouverneur wax naag euh, euh, commission yi fa teewoon wax naag autorité yi nga xam ne tamit ak service ñoom Sonatel ak ñoom Tigo ak ñoom service d'hygiène ñu yore affaire ajurut ak mboolem laju ci gàmm gàmm dafa yaatu ñu yore social ak yépp pour ñu taxaw ci soxla yooyu jafe-jafe bi ñu ci gënoon am nag mooy yoon wi ndax sëriñ bi dafa bëgg yoonu teewe nga seen ñu defal ko yàkkali ko yaatal ko keroog nag waa ajurut xamle woon nañ ne daal euh, mënta pare fii programme 2020 22 janvier yooyu la ñu doon wax gars yi xamal nañ leen loolu moom chaque année benn baat bi moom ngeen ñu wax loolu dañ ko wax rek pour leeralal ko taalibe pour ñu xam ko waaye nag monsieur le gouverneur maa ngi koy gërëm bu baax ku am itti la ku am taxawaay la fexe na ba wax fa ay wax ba jën nañu engagement nga nañ dañu bind ministre bi wax ak autorité yi ci kaw li ñu fexe lu man ñu def ko fexe mu taxaw léegi nag ñu ngi jëm ci bés boobu bés bi lan la laaj taalibe yi yëpp fagaru takkaayaat bu baax nañ ko daan defee wala nu ko raw sëriñ bi li mu bëgg mooy ñëpp ñëw ci jàmm fekk jàmm bàyyi jàmm delloog jàmm ak yiw ak nangu ñaan ki nga xam ne nag moom lañuy feeñal bësam ki nga xam ne moom la ñuy teewlu di taataan ay leeram ci bés bi muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallaahu anhu nga xam ne international la yàlla def mu juddoo Taïba Niassène ci li gën a siiw 1900 waaye boo demee ci datu arab bi am na uutee Baay radiyallaahu taala anhu juddoo fa juddoo ci maam Alaaji Abdoulaye ak soxna maam Asu Jànq mboolem doomi maam Alaaji yépp gàmbi lañ juddoo moom Baye mu juddoo Sénégal juddoo Taïba Niassène ndax Maam Alaaji dafa doon góor bëggoon diina ji di xeexal diina ji nangu wutoon doom yu jàng tubaab di daw tubaab bi tubaab bi tamit def ko noon di ko xeex di ko dàqee fu ne taxu na fa bërëb yu bari yàlla def nag mu jigi mu ñëw fii Kaolack kon Cheikh Ibrahim mu juddoo Taïba Niassène mu taal àddina bi taalul safara taalul xay nekk niti jàmm dekkal leer yonent bi sallallahu salaa sallam dekkal sunna yonent salaa sallam l'islam dekkal tariqa bi indi fayda bi nga xamne moy xam la yàlla ni Cheikh Tidiane digge wona dana feñ ci tariqam bi mu feñe mu feñe ko koosi ote fa yàlla nango ote ba mu jigi mu gadda ñëw fi Medina Baye tuddee ko Medina yonent salaa sallam ne mbóot bi nekkon ci Medina yonent bi rayat na ñëw ci medina lan nekkon ci jëmm yonent salaa sallam ñëw na ci jëmmam walima laa wa aynil yowma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaaye tey man Baye Niass man maay jëmm yonent bi salaa sallam leer yonent bi mi ngi ci man xar kanam yi leer yonent bi mi ngi sama xar kanam rox yonent bi barke mi ngi ci man may doxal aalam bi kon kooku lañuy ñuy màggal kooku lañuy fàttaliku kooku nga xam ne doomi Sénégal la Sénégal yépp koy tiitaroo ci képp ku Sénégal bëgg lu baax waaye doomi jullit la islaam doomi tariqa bi la indi fayda nag kon bés bi ñépp ci ñëw Nigéria Niger Mali Guinée Amérique dégg nga Angleterre fu nekk France la ñu ñi di bàyyeekoo ak ci biir Sénégal gi ak sous région bi dëkk yi fi wër di ñëw ngir fàttaliku jëmm jooju nga xam ne raw na ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu Cheikh Ibrahima Niass jëmm jooju nga xam ne raw na ci euh, bëgg l'islam ak roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm jooju nga xam ne raw na ci bëgg Sénégal bëgg Afrique ba taalif téere tuddee ko Afrique aux Africains li yi di wax ci yooyu mu leen Afrique nañu ko bàyyi africains yi ko moom ñoo koy doxal seen bopp bi réew mi commencé tubaab di ko atte mu ñaan yàlla mu ne bëgg naa gis jamono joo xam ne jàmbur du ñu àtte ñun sénégalais ñoo yoral suñu bopp suñu réew àttal ko suñu bopp ba yàlla def loolu mu tàmbalee ci jamono président Senghor jaar ci président Abdou Diouf jaar ci président Abdoulaye Wade ba agsi ci président Macky Sall boo léegi yàlla def leen lu ko sopp kon Cheikh Ibrahima moomu la ñuy waxtaanee kon maa ngi gërëm Al Fayda Tidianiya point com di la gërëm yow Babacar mi nga xam ne yow lañ yebal nga utu leen fii Kaolack rafetal ko te ñaawaloo ko ñu nuyu mbooleem sa gars yi nekk Dakar ñoom Cheikh Tidiane Guissé di wax ne ñi ngi pare daal pour fuglu gàmm gi waajal ko bu baax commission yëpp ñi ngi sur place ñi ngi def li leen war seen kéemtalaay kattan waa Taïba nga seen itam jaaraama maa ngi gërëm monsieur le maire maa ngi gërëm mboolem euh, commission bi fa nekk dëkk Taïba nga seen di liggéey ñoom it ñi ngi jokkoo ñun daay man maa ngi gërëm Cheikh Tidiane Guèye euh, sama adjoint la bokk di gërëm Cissé Niang euh, di gërëm ki nga xam ne mooy mars bi tey ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci commission yi sëñ Abdourahmane mu bàyyi maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi koy gërëm maa ngi saluer effort yi nga xam ne mu ngi koy def tey ba nga seen yoon bi fexe na ba la quelque taalibe ba ñu jox ko ay ay biir mu jënd ay 60 lamp yóbbu ko lamp bu nekk dafa cher mu dem di ko def ci mbedd tey ba nga seen kooku initiative bu rafet la maa ngi ko ci saluer maa ngi nuyu sëñ Siraaju Diin Ñas di doomi Baay Ñas nga xam ne ñun ñëpp sama commission la ci sama biir mu bokk ak ñoom di liggéey ma jiite COMAF moom it def na initiative yoon bi def xadara juma Dakar def jotaay Gambie yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne tàggu na ma bi mu koy defat maa ngi ko ci salué bu baax a baax a baax di nuyu nag mbooleem taalibe ak soppe yi di gërëm sëriñ bi xalifa bi ci confiance bi mu jox di ko ñaanal yàlla gudd fat ak wér di ñaanal euh, euh, Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mboolem rakkam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy gàmm-gàmm ji ah, yàlla defal ko jàmm defal ko tawfiq di ñaanal nag ki nga xam ne mooy imaamul akbar Cheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé di ñaanal ay rakkam di ñaanal Cheikh Mahi Ali Cissé muy porte-parole bi di ñaanal sama bopp di ñaanal jullit yëpp yàlla defal ñu jàmm yàlla màng ngi taalibe yi ñëpp ak soppe yu ñëw ci jàmm fekk jàmm ñu xam ne nag Cheikh Ibrahima Niass idole la Cheikh Ibrahima Niass référence la képp kuy doon rey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee Cheikh Ibrahima rek da nga gis yonent bi da nga gis jikko yonent bi sallallahu alayhi wa da nga gis jikkoy alxuraan da nga gis ku bëgg yàlla ku jeex ci yàlla da gis koo xam ne du wax ci boppam yàlla rek lay wax doo ko am noo xam ne du la xamal boppam yàlla la lay xamal xamal la yonentu sa xamal la cheikh xamal la tur yàlla yi da nga gis koo xam ne nii ku am fit la woon mais fit bi daf ko jëmee ragal yàlla ba pare am fit ci li ko yàlla sant am fit ci lu yàlla bëgg am fit ci luy yëkkati réewam am fit ci luy yëkkati Sénégal kooku la mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu am fit ci luy goreel doomi aadama Cheikh Ibrahima moo la jël goreel la sa diggante ak sa borom ne la yaa ngi sa borom a ngi nii Cheikh ibrahim mo lay goral ne la dégg nga xale bu mën dem ba rëj-rëj loogu mag ni ci lu baax do to xale mag nga ta yaakaar yi yaakaar yi ci kese tamit ku dem ba nga xam ni am nga diine lislaam waratoo nek xale ken ko dem nga xam ni am nga tariqa bu for bi waratoo nak nek xale kenn kon baye dafa ñu ko goral do nga adamay kon ñu koy jaaraama bu baax parce que bi nag du jaamu lu dul yalla du sos lu bon waye xiir nañu ci lu baax ñu yelloo njukkal tam waajur yi nga xam ne mënuñ koo delloo njukkal ndax ñaanoon na yàlla ne daawtu rabbi an yoo am ma yi kullal waraa koo yax ma yàlla jox ma te mooy njub dëgg-dëgg yàlla matale ko mu law ci àdduna yëpp boo demee di woon wër àdduna tey ay millions yu millions centaine de millions na jamono moo feeñagut pour loolu organisé wu ci benn loxo mu taxaw waaye taalibe bàyyi ci biti yi ci biir réew mi rek bu ñu jàppante woon rawat nañu ci biti mën na yokk koom ci réew mi mën na yokk koom-koom ci Afrique waaye mën na yokk bennoo ndax bàyyi dafa dem Nigéria dem gaana dem ci yéen dëkk fekk fa ay waaso ay xeex ay xeet yuy xeex ay ati at ay siècle mu ñëw boole leen ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ñëw boole leen ñuy gorowante mu ñëw boole leen ñuy bëggante waajur yi la waajal bësam sa suñu bés la nag moom soxlawut bés boobu ñun ñoo ko soxla ñun ñoo bëgg a jëriñu kon nag ngel la nañ ci dem nit ñi sëriñ bi bëggee demee ci ci yar demee ci ci teggee ñi ngi ñaan autorité bi ñoom seen engagement yi ñu nañ ko def yàlla jàppale leen ci ñu ngi ñaan tam ñi ngi nekk ci yoon yi frontières yi mal yi frontières yi eh, danga nga Gambie frontières yi feneen fi nga xam ne sous région bi ñi dañu ñëw ci jaar ci suuf ñi jaar ci ndox ak ñi jaar ci avion yombalal leen yoon yi bu baax na ñaan oto yi indi gan itam ak taalibe yi ak soppe yi ñu daw ndànk ñëw ci jàmm fekk jàmm dellu ci jàmm ñu ngi wax tamit ne eh, ñi nga xam ne ñoo yore sécurité yi ñu gën a veiller bu baax ci gan yi ak askan wi xam ne bés bi bésu jàmm la Baay radiyallahu anhu lu nekk def na ko ci ñun salaasam kon ñun tam bu ñu bëggee jëriñu nañ def lépp lu ñu mën ci bàyyi ku am loo tëralee gan yi ci lekk ci naan ci daluwaay bu yomb ubbi seen kër yi yaatal ñépp loolu la Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass nekkee loolu la ay rakkam nekkee ak i muxaddamam loolu la sant mboolem muxaddam yi ak mboolem taalibe yi ñu yaatal seen dënn dolli lañ defoon ñu yaatal seen i kër dolli lañ defoon def lu dul lu baax ñu ngi leen di gën a soññ ci bés bi ñu yaatal xol yi yaatal dënn yi ba gan yi ñëw si jàmm dellu si jàmm lu daal la amagoon lu may waxagum su fekkee amoo question yoo xam ne dañ ko bëgg laaj kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mi xam ne nii moom la ñuy màggal moom la ñuy fuglu moom la ñuy teral ci bés bu tedd bii ñi ngi yàlla yàlla na yàlla yokk suñ gëm yàlla yàlla na yàlla yokk suñ mbëggeel ci Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga mi nga xam ne waxoon na ne waman yuhibbuni waman yaraani fi jannatil xuldi bilaa buhtaani képp ku ma bëgg gis ma rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci digg aljanna bi gën a kawe ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu liggéeyal Baay ci diinal islaam liggéeyal ko ci tariqa tija liggéeyal ko ci fayda bii mu indi liggéeyal ko ci réew mi ci askan wi ci Afrique ci àdduna bi liggéey boo xam dana ko gërëm ndax moom waxoon na ne laa karamata akbar min al xidmati lii fi xaqi man lahu basira karama gënta rëy liggéeyal ma man Baay Ñas ci xàq koo xam ne nag yàlla ubbi na sa bëti xol ku yàlla ubbi sa bëti xol doo gis loolu yàlla na yàlla ubbi suñu bëti xol bañ gis loolu rëj rëj ci liggéeyal ko te yàlla nañ ko sellal yàlla nañ yàlla nañ ci ànd ak sell ak mat ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dimbale taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àddina yàlla yëkkati leen yàlla suturaal leen féetoo bi ñu féetoo bàyyi gëm ko nangul ko ñu ngi ciy jëriñu waaye yàlla na gën a yokk yàlla tàppe xol yi def ñu ñu nekk benn ñu ànd ak suñu mbokk jullit yi ci réew mi yëpp ànd ak suñu mbokk askan wi ci réew ànd ak suñu mbokk jullit ci àddina bi ànd ak doomi aadama yi ci lu neex yàlla ci lu neex bàyyi fexe réew mi jëm kanam fexe Afrique nekk benn itey bàyyi la woon fexe ba برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان